am na benn programme boo xamante ni ministre du commerce. ñu ngi nii. Mm. Euh, di Abdou Karim Fofana. Mm. bi mbir mi amee da ko fekk Kaolack. mais mm. ci saa si moom dafa jubal si Touba. moom moo fi njëkk. mais am na benn programme boo xam ne programme de modernisation la. ci euh, loo xam ne dañuy yeesal marché yi. Ah. mais marché Ocass am na nu mu bindoo noo xam xañ na. Euh, dafa am lu particulier. ndaxte yeneen marché yi. espace public la. boo xamante ni état bi moo koy moom. wala maire bi moo koy moom. mais fi ne fii boo xoolee ni mu bindoo nit ñi ñoo ko moom hmm. te loolu dafay laaj nag waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom lañ ko séqal hmm. diggante maire bi diggante borom place yi boroom kër yi nga xamante ni dañ fi def place hmm. waaye tamit ak ki nga xamante ni moom mooy ministre di commerce loolu waxtaan la laaj mais su doon espace la boo xam ne dañ mën a ñëw rek daaneel lépp dal di koy defaraat loolu beneen mbir mais ni mu bindoo la mais du tey lu nekk rek dañ ci wut jàngat lii am nii tey tamit jaar na laaj jaar na ñu waxtaan mm. jar nañu xool yan yoon la ñu mën a jaar ba yéen ñi nga xamante ni yéenay borom place yi mm. alhamdulilah bi ngeen xamee ni am na nécessité mm. pour ñu defaraat parce que defar boo gis dina am loo xamante ni dina am euh, ay inconvénients yu ci nekk mais loolu yëpp dañ koy waxtaanee ba mën si tënk te li nga wax léegi nii président de la république yëg na ko euh, bi lakk bi amee ñu dal di ma koy yëgal ci saa si dama ko woo bi ma ko wooyee mu ni na nga woo sëriñ bi nga xamal ko ko sëriñ bi man maa koo yëgal sëriñ Mountakha mm. mm. man maa ko yëgal mm. woo naa ko jot ko téléphone wax ko ko ba pare ni ko jot naa ndigalu président de la république ci saase ma dem Touba su ma demee wax ak euh, général bi fekk boobu ñu ngi coordonné téléphone lépp lu ñu am ci ay moyen ak secours yi wër Touba ci saase lañ ko dal di yabal ñu ñëw fii moo tax gis nga lakk gi metti na waaye yàggul te mënoon na gën a metti kon ñu ngi nga xamante ni dañu yàqule waaye sant yàlla bi nga xamante ni tamit ci saa si état bi organiser secours yi ci ndigalu président de la république ak ci coordination premier ministre bu mu gën a gaawee loolu mooy li nga xamante ni bëggoon naa la ko wax te xam naa ni liggéey bi dinañ ko wéyal ànd ci ak gouverneur ànd ci ak préfet mais ànd ci tamit ak sapeur pompier ak gendarmerie policier yëpp loolu bëggul wax di leen gën a masawu waaye di leen wax tamit ni loolu yëpp dinañ ko ànd xool ensemble incha allah incha allah délégué euh, Serigne Seydi Dieng leeral na ko Euh, marché yi dañuy seetlu lu bëri ministre du commerce mi ngi nii xam na dina indi ay yeneen leeral mais li nga xamante ni wóor na mooy marché yi dañu seetlu dafay am problème toujours pour yegg ci yenn bërëb yi bu ci lakk amee loolu nag am na benn programme boo xamante ni bu yaatu président de la république di ko doxal dënk ko ministre du commerce mu ciy def liggéey bu rafet mm. boo xamante ni dañuy ñëw euh, xool bu fekkente ni marché bi dëppoo na ak lépp loo xamante ni dañu itteewoo ay matuwaay ba su fekkente ni jéeya am na yàlla bu mu am ci saasi service yi nga xamante ni dañu war a fay lakk yi muy sapeur pompier du ñu am benn difficulté ngir yegg fi nga xamante ni fa lañ soxlay yegg wax nga léegi euh, ci lakk gu fi amoon seeni sëñ seeni fàttali na ko boobu ñëwoon nañ taxaw ànd leen ànd ak ñoom jàppale leen ci lépp li nga xamante ni mooy euh, ci li ñu yàqu non li ñu yàqule ñu ut lu ñu leen ci jox loo xamante ni dafa leen di daf leen di dimbali maintenant marché Ocass dafa am particularité marché Ocass dafa am noo xamante ni moom la bindoo hmm. am na marché yoo xamante ni état bi moo ko tabax ci béréb bu euh, nekk espace public hmm. am na marché yoo xamante ni maire yi ñoo ko tabax hmm. mais marché Ocass ni mu bindoo ci ay kër ak ci ay place la yoo xamante ni seen ay borom ñoo ko moom wala ñi ko moom dañ ko luye ñeneen loolu nag moo gën a naqaree xaw a defar tuuti foo xamante ni état bi moo ko moom wala maire yi moo ko moom loolu dafay laaj waxtaan boo xamante ni dinañ ci waxtaan ak sëriñ bi waxtaan ci ak ñi nga xamante ni tamit ñoo moom place yi loolu mooy li nga xamante ni mooy jafe-jafe bi ci gën a kawe mm. bon sëriñ Seyni xam na li may wax mm. tey boo ñëwoon tey fii bëgg fi defaraat waxtaan wu yaatu lay laaj. waaye ñi ko seq tamit il faut que ñu ànd ci li nga xamante ni moom lañ leen bëgg a defaral. Hmm. loolu mooy particularité. président de la république bi mbir bi amee dama ko ko yëgal mu daal di may jox digal ci saa saasi ni ma na nga woo sëriñ bi nga wax ko ko sëriñ bi bi ma ko wooyee man maa ko yëgal ni ko jot naa ndigalu président de la république euh, son excellence Macky Sall ngir dem Touba. Euh, waaye laata may yegg sax dina coordonné ak le général des sapeurs pompiers nga xamante ni li ñu amoon fii ci Touba ci engin euh, bi ñu seetloo ni dayo lakk bi toll dañu ittewoo woon indi lépp lu ñu wër fii ci Touba ci ay wàllu machine engin ak li fay lakk moo tax soo seetloo oto yi yegg si jóge nañ Daaru Muxti juge nañ Jurbel jóge nañ Bambey jóge nañ Gossas jóge nañ Kaolack jóge nañ Fass Bërigo donc foofu yëpp ci saase dañ leen woo ni bu kenn toog na ñëpp ñëw jubal si Touba mën a fay lakk gi am na lu fi jot yàqu mais bu fekkoonte ni ñooñu ñëpp ñëwuñu woon dina gën a metti te dina gën a euh, xañ na euh, weesu fii loolu nag mooy rôle état état réactivité la bu jéye amee ci saase bala moo yàgg li gën mooy jéye bañ a am mais saa yu amee tamit ci saase war nañ organiser secours yi ci diir bu gàtt li nga xamante ne moom mooy jéyee jooju ñu euh, indi ci saafara li doon gën a nekk urgence li gënoon na jàmm mooy ñu fay lakk te yàlla dimbali nañu man laata may dugg Touba sax général bi nee na ma li fi nekk ci moyen ak tamit may rafetlu loo xamante ni xam nañ ko Touba waaye tey feeñaat na tey hmm. mooy population yi hmm. gis nga ñi dëkkee Touba ak ñi hmm. dëkkee ceetu marché bi bi mbir mi amee rek ñoom ñëpp dañu dal di ku nekk jël sa siwo ñiy jël seen pan ñu indi ndox di ci jàpp loolu euh, dañ dañ koy rafetlu. loolu ak citoyen la. ak waa Touba ci kanam. ak waa ci kanam. ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm.